xam nga moom mais am na ay interrelation yi nga xam ne doon ko gis. xëy na ci tout à fait parce que élection présidentielle moom mooy actualité bi li ñu mën a seetlu mooy bi mu nekkee actualité bu tey. loolu mooy li ci yéem. Hmm. depuis 2019 bi ñu falee président Macky Sall. ñoo ngi ci élection présidentielle. Hmm. moom commencé woon na campagne la si la amoon débat wu troisième mandat oui ou non nii oui nii non mu am ci coow xam ne rëy na ci depuis hmm. opposition bi 2019 dafa falu ñu ko une seconde ñu nekk ci élection présidentielle. Mmh. même bi ñuy def local yi dañ doon wax naa ni local yi prétexte la rek mais enjeu bi moom mooy élection présidentielle. Mmh. législative élection présidentielle. Mmh. donc est-ce que réew mën na fonctionner noonu jël cinq six ans nekk en en perpétuel permanemment en campagne électorale. loolu c'est une préoccupation. c'est pas possible. li fi ñëwoon xaw dugg ci diggante bi moo doon Covid bi 2020. mais même Covid bi mu ñëwee ba nit ñi commencé di liggéey ci ay consensus sur benn minimum de solidarité pour mën a tabax benn résilience ba lu ñëw duñu daan même bi Covid bi ñëwee après dafa mujjuwaat encore ci politique politicienne ndax dañu commencé naan mais xaalisu Covid bi lekk nañ ko fu mu jëm. donc ça veut dire quoi ce pays là mu nekk dëkk bu ñu war a tabax il faut ñu xool ban place le politique parti viu parti politique. Mm-hmm. parce que politique moom. lépp politique la. lépp politique mais euh, politique politicienne ban place la war a jël ban moment la ñu ko war a def pour mën a passer à l' essentiel ça pour ñun euh, benn mbir la boo xam ne dafa am solo. Mm-hmm. maintenant bu ñuy xool aussi euh, nga xool lien bi avec l' école ou l' éducation ñun pendant longtemps dafa naa li ñuy dégg ci mbirum euh, vie parti politique yi bëriwul bi ñu waxee. ci diggante deux mille dix neuf ak léegi. comme j'ai dit bi mu amee coow Covid bi ñun jóg nañ pour set nan la ñuy gën a dëgëralee suñu lekkool. amaat na fi yeneen coow wax Sonko Adji Sarr kenn dégguñu si. nga dégg ñu ne après Mbaye Mbaye mbay ñaa ak euh, Sonko. dëggaat ñuy génne ay foofu la ne. Hmm. Euh, coow loo xam ni daal euh, bëri na fi ci diggante bi te ñun dañ cee mosul la nangu dugg. Hmm. nga ñëw sax ba même bi ñu nekkee ñoom ci période euh, dernière période bi ñu wax ay US USB bu ñu jël. Mm. ay nit koo xam ne dañ ko déniché parrainage donc coono amoon na ci mais tout ce qui est dans une perspective politicienne ñun ñu sondu mm-hmm. mais nag mbir am na fu muy demee ba laal fondamentaux réew mi dangay gis ni yow li tax nga jóg muy lekkool bi wala kiy def commerce bi wala presse bi mënatuloo mucc. ci bañ wax. Mm-hmm. ci mbir bi nga xam dafa am. Mm-hmm. alors loolu mooy waral évidemment que ñu siy am intérêt pour wax ci Mhm. tey lan moo xew li xew mooy amoon na élection bu ñu waroon def le vingt cinq février ñun euh, éducation ñu yàkkamti woon ko lool. Mhm. parce que pour ñun élection jour fête la. jour célébration la. Mhm. ku nekk sol lu rafet parfumé ba mu baax dem voté ji ñëwaat xaar résultat. ñu convoqué ñu bu yàgg ñu ñëpp ñu préparé wu mentalement dañu war dem voté ji. le vingt cinq ñu jege ñu ne ñu finalement loolu am. te bi ñu nekkee ci perspective yooyu boo ko jëlee ci l'école bi. octobre novembre décembre mooy ñett weer yi njëkk ci l'école bi école bi am na dal ñëpp seede ko ñun defoon nañ fi ay alerte di fàttali ne bu ñu deful ndànk élection yi mën na am lu mu gaañee l'école bi mais l'école bi amoon na dal je crois mm. benn journée noire moo fi amoon nekk ci moyen secondaire te jur woon sax moyen secondaire bi donc l'école bi am na dal kañ la école bi perturbé wu bi ñu jëlee décision yi war nañoo dem ci report mm. mu commencé xale yi génn ñu naan ndax dañ leen manipuler ou pas enseignants yi am ñoo xam ne commencé nañ jël ay grève février trois waaw. jour boobu la école bi commencé di am. donc ñun bu fekkee ni bu école yëngatoo dañuy xool li tax mu yëngatu li ko perturbé pour ñu dut ci baaraam bu dee ay jàngalekat yu manqué la ñu dut ci baaraam. bu dee waxtaan bu manqué la ñu dut ci baaraam tey li tax l'école bi ak askan bi weesu na sax l'école bi mu am ay perturbation suñu système loolu wax dëgg yàlla bu ñu wax dëgg moom mooy décision bi ñu jël pour reporter élection kon nag bu nekkee da bëgg am saafara boo xam ni saafara bu durable la bu xóot la il faut nga adressé loolu loolu mooy mbir